Africa. ñu mën ko méngaleeg Thomas Sankara Kwame Nkrumah wala rek Patrice Lumumba Aboubacar Ba ab ndaw la gane àdduna bésub fukki fan ak benn ci weeru août atum 1996 fii ci Ndakaaru nekk ku engagé lool di itam ab étudiant sa institut supérieur de droit bu Ndakaaru di ab bindkat bu mag xeexam di indi yokkute ci réewum Afrique yi taxawaayam boobu moo tax ñu invité woon ko fële sa Wagadugu di dëkk bu révolutionnaire bu mag bi di Thomas Sankara ngir waxtaanee xalaat xalaat ak it gëm-gëm si luy tax ba Afrique jëm kanam. ba pare nekk fondateur. en même temps président mouvement international des jeunes panafricains. mouvement bi nag lu ko tax a jug maanaam waa Afrique jeunes africains yow xam ne. pare nañ pour xeex pour Afrique dem. ñun ñëpp ñu booloo déggoo ci benn kàddu comme ça ñu xeexandoo ñëpp xàccandoo dóorandoo comme on le dit pour euh, bien faire l'avancement de notre continent loolu moo tax a mouvement laata muy doon bindkat Aboubacar Ba taxawaloon na benn kuréel bu ñu dippee mouvement de citoyenneté nga xam ni moo doon njiit li laata loolu moom taxawal na ab mouvement international bu dajalee ay ndaw africain ngir rek mën a yaatal xeex bi muy xeex ak it gis-gisam ci Afrique ba waral ba mu tuddee ko mouvement des jeunes panafricanistes xam-xamam màcc na loolu ci wàllum yoon xaatim na ab téere bu mu tuddee le Sénégal ne refuse-t-il pas développement muy ab téere buy wax su sous-développement bu Sénégal samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet bi ñu dëgmal fas yéene na fésal ñaareelu téeréem fële sa hôtel Fleur de Lys bu Ndakaaru tey moom mile Aboubacar Ba lañu ñu invité ci émission ëttu ndaw ñi ngir waxtaanee ci téeréem bi mu tuddee peuple africain réveillez-vous dalal ak jàmm Aboubacar Ba.